الحب اللي عمره ما يشمت asalaamaaleykum mbokki déglukat yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi te di leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di dellu di sant yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist
الله asalaamualeykum sunu mbokki auditeurs yi mbokk yi ñuy déglu ci sunu émission kàddu gu sell gi man pasteur Ahmed Fall ma leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di nuyu képp kuy yeewoo fii ci Sénégal di nuyu mbokk yi nekk bitim réew te di ñaan yàlla sunu boroom ci jëmmi Yeesu Kirist mu barkeel sunu dëkk barkeel askan wi fi yeewoo muy ngay doomu réew mi wala ngay doxandéem di ñaan yàlla sunu boroom ci jëmmi Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist mu xiir ñu ci boppam ba ragal yàlla gu mat sëkk nekk ci képp kuy yeewoo fii ci biir Sénégal nekk ci ñun ñépp sunu émission kàddu gu sell gi dañ koy lal ci téere bu sell bi nga xam ne moom lañu yàlla sunu boroom jox muy biibal bi ma leen di fàttali nag ne képp koo xam ne bëgg nga ci am mën nañ la dimbale ba nga am ci moo waral ñu leen di jox sunu numéro de téléphone bi di 77 0 74 35 35 bu dee itam am na loo xam ne dégg nga ko nga bëgg am laaj boo ciy laaj am loo ciy leerlu wala boog loo ciy yokk mën nga ñu woo itam pare nañu déglu la kon ñu leen di gërëm di leen sant mbokki auditeurs yi damay wéy ci benn ponk goo xam ne moom laa doon waxtaanee fan yële weesu muy li nga xam ne day dox ci diggante ñi nga xam ne dañu wàcc yoon ñi nga xam ne dañu réere li yàlla sunu boroom wax wala boog ñu dummóoyu ko ak taxawaay bi ñu war a am ci kanamu nit ñooñu lan la ci yàlla sunu boroom wax ma leen di fàttali ne jàngoon nañu ci kóllëre gu bees gi ñu koy wax nouveau testament ci nasaraan jàngoon ci injil xaaj bi ñu jagle luk ci aaya fukk ak juróom saar benn ba fukk ma jàngaat ko ngir fàttali leen ko mbokki auditeurs yi kon bu ñu jàngee ci injil ci xaaj ba ñu jagle luk ci aaya fukk ak juróom saar benn ba fukk lii lañu yàlla sunu boroom indil mu jëmoon ci Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist ñu ne ay juutikat ak boroom bàkkaar daan jege ci Yeesu ngir déglu ko pharisien ya ak xutbakat ya di ñurumtu naan waa ji mi ngi nangoo nekk ak ay boroom bàkkaarkat ak a lekkandoog ñoom noonu Yeesu daldi leen wax léeb wii ne leen kan ci yéen su amoon téeméeri xar te benn réer ci nu muy def ndax du bàyyi ca parlukaay ba juróom-ñeenti fukk xar ya ak juróom-ñeent toppi ma réer bu ko gisee day woo bokkam ak ay dëkkandoom jël xar ba yóbbu ca kër ga bu àggee ca kër ga dina woo ay xaritam ak ay dëkkandoom ne leen kaay leen bànneexu ak man ndaxte gis naa sama xar ma réeroon maa ngi leen di wax lii ci noonu dina am mbég ci asamaan bu benn bàkkaarkat tuubee ay bàkkaaram te mbég moomu mooy ëpp mbég mi nga xam ne ngir juróom ñeenti fukk ak juróom ñeenti ñu jub te soxlawuñu tuub seeni bàkkaar mu yokk ca ne te it bu jigéen dencoon fukki libe d'or benn réer ca nu muy def ndax du taal ab lamp bale kër ga seet fu nekk ba gis ko bu ko gisee dina woo ay xaritam ak ay dëkkandoom ne leen kaay leen bànneexu ak man ndaxte gis naa sama alal jëreeroon maa ngi leen di wax lii ca noonu lay malaaka yàlla yi di am mbég ci benn bàkkaarkat bu tuubee ay bàkkaaram seydina isa almasi bi yeesu kirist wax loolu jëmale ca ña nga xam ne dañ ko doon topp muy ay nit ñoo xam ne dañu jàppoon ne ay defkatu lu bon lañu wante ñu ko doon topp di déglu li muy wax ña nga xam ne nag ñoo jàppee woon seen bopp ne ñoom ñooy ñu jub ñi tàmbali di ñurumtu di ko sikk naan nu ma mën a def wala lu waral muy toog ak nit ñi nga xam ne ay nit ñu bon lañu mu tontu leen ne leen bu amee benn defkatu lu bon boo xam ne tuub na bàkkaaram na ngeen xam ne mbégte mu rëy mooy am ci kaw asamaan bi mu waxee loolu ba pare dafa am beneen léeb buñ ci teg ñu tuddee ko doom ju réer ja mu nekk ci lug ci aaya fukk ak juróom saar fukk ak benn ba saar fanweer ak ñaar seydina isa almasi bi yeesu kirist di wax naan dafa amoon ab góor gu am ñaari doom benn bés caat ba ne ko bàyyi dama bëggoon nga jox ma li ma war a féetewoo ci ndono li noonu baay bi daldi leen séddale alal ji caat ba dem topp bakkanam dem jël alal ba pasas paree ko dem dëkk bu sori topp jigéen ñu bon ñi topp naan beeg topp yooyu yépp nga xam ne yu bon la mu dem ba ci biir amatul dara ndax xiif gu rëy dafa amoon ca dëkk ba xelam dellu siwaat mu ne danaa dellu sama kër baay bu ma delloo danaa wax ak moom nee na xel mi dellu siwaat mu ne sama baay am naa ay surga yu bari te dañuy lekk ba suur man maa ngi fii di bëgg a dee ak xiif damay jóg dem ca sama baay ne ko baay tooñ naa la tooñ naa la tooñ naa yàlla yeyootuma nekk sa doom boole ma ci ay say surga ba loolu amee mu jóg dem fekki baayam ba ko baay ba gisee fu sori mu daw gàttandu ko fóon ko mu ne baay bi maa ngi jéggalu ndaxte tooñ naa yàlla tooñ naa la léegi nag dellu si naa dama bëgg nga boole ma ci ay say surga ndaxte yellootuma sax nekk sa doom ba mu waxee loolu baay ba woo surga yi ne indi leen yére bu rafet ngeen solal ko jël leen li gën a duuf ci gàtt gi ngeen rey ñu bànneexu ndax sama doom ji dafa deewoon te dundat na dafa réeroon te feeñ na noonu ñu tàmbali di bànneexu ba ko taaw ba yëgee mu mer wax ak baayam ne ko lu tax nga jël sa caat mii nga xam ne daf la dëddu dem topp la ko neex topp bakkanam mu dellu si ngay bànneexoog moom jëggal jël li gën a duuf ci gétt gi rayal ko solal ko yére bu rafet te man maa ngi nii nekk ak yow musuma la dëddu maa ngi nii di la liggéeyal te musuloo ma defal lu mel noonu baay bi tontu ko ne ko sama doom yaa ngi ak man bés bu nekk te lii ma am lépp yaa ko moom waaye war nañoo bànneexu te bég ndaxte sa rakk jii dafa deewoon te dundaat na dafa réeroon te feeñ na seydina isa almasi bi indi léeb boobu di wax la nga xam ne moom mooy xol wala cofeel bi nga xam ne yàlla sunu boroom am na ko ci ñun ñi mu sàkk dañuy alalam ak li nga xam ne day doon mbégteem bu dee nit dafa réer wante dem ba gindeeku dem ba yëg ne réer na dem ba yëg ne tooñ na dem ba yëg ne topp na nafsoom te léegi kat jot na mu delluwaat ci boroomam Seydina Isa almasi bi di ñuy jàngal foofu ne yàlla sunu boroom dafay bég ci loolu war nañoo bànneexu te bëgg ndaxte sa rakk ji dafa deewoon te dundaat na dafa réeroon te feeñ na loolu la baay bi wax ñi jàpp ne ñi ngi nekkal yàlla war nañoo yittewoo ñi nga xam ne dañu dëddu yàlla sunu boroom lu tax ñu war leen yittewoo mooy yàlla sunu boroom mi ngi wéy di teg ay gëtam ci ñooñu nga xam ne dañ ko dëddu ngir lan cofeel bi mu am ci ñoom ngir lan bëgg ñu dellu siwaat ci ñoom ngir lan bëgg ñu mucc ngir lan bëgg ñu ñu alku ndaxte yàlla mi ngi ñuy wax ci téereem bu sell bi nee na bu dee ba léegi farul àdduna li mu ci jublu rek mooy lan mooy nit ñu bon ñi mën a tuub seen bàkkaar ba kenn du leen mbugal wante ñu mucc ñu texe loolu moo waral ba léegi yàlla sunu boroom farul àdduna fii nag mu yee ñi nga xam ne kat nee nañ ñoom yàlla lañ fi nekkal ñi nga xam ne nee nañ yàlla lañuy liggéeyal mu leen di yee naan leen bu leen xiiroo ŋaayoo ñi nga xam ne ñi ngi def lu bon wante def leen seen kémtalaayu kàttan ngir delloo si leen waat ci gétt gi ngir jubbanti leen ngir jàngal leen ngir yee leen ngir yedd leen na ngeen wéy di leen bëgg na ngeen wéy di jooy ngir ñoom na ngeen wéy di tin yàlla di ñaan yàlla seen boroom ngir ñoom ngir lan ngir ñu dëpp bàyyi seen lu bon dëgmal dugg ci yoonu ragal yàlla ci yoonu wéyee ndigaale yàlla sunu boroom ñooñu topp seen bakkan ba léegi alalu yàlla sunu boroom lañu xanaa kay dafa fekk ne seytaane ëpp na leen doole ba xëcc leen seytaane ëpp na leen doole ba ëlëm leen la nga xam ne nag moom moo war a doon taxawaayu ñi nga xam ne nee nan diine gi lañ fi nekkal ñi nga xam ne nee nan askan gi lañ fi nekkal mooy ñu jàmmanteeg ñooñu ba mën leen xëcc génnee leen ci lëndëm dugal leen ci leer ndaxte dañu réer te war na ñu wut leen ba gis leen ba delloo leen waat ci gétt gi seydina isa almasi bi yeesu kirist dafa wax ci injil ci xaaj ba ñu jagleel Matthieu ci aaya fukk ak juróom ñett ci saar fukk ak juróom ba fukk ak juróom ñaar seydina isa almasi bi yeesu kirist wax lii nee na bu sa mbokk defee bàkkaar demal yedd ko yéen ñaar rek bu la dégloo kon gindi nga ko gindi nga sa mbokk waaye bu la dégluwul ànd ak ak kenn ba ñaar ngir mbir mi déggu ci li ko ñaar walla ñett seede bu leen dégluwul ñoom itam wax ko mbooloo mi ñi gëm loolu la Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist digle nee na bu dee da nga gis koo xam ne kooku kat mi ngi topp bakkanam nee na woo ko nga yedd ko yéen ñaar rekk bu dee dégluwu la nga jël benn ñaar ba ci ñetti nit ngeen dellu ngeen yedd ko bu dee dégluwu leen ngeen dem ci mbooloo mi wax ak mbooloo mi mbooloo ñi gëm ngir ñu sol seeni tàll dem wax ak mbokk moomu nga xam ne dafa topp bakkanam mi ngi ci lu neexul yàlla kon ñu gis ne Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist li mu wax foofu lu leer la am na ay jéego yoo xam ne war nañ ko dox bu ñu gisee góor walla jigéen joo xam ne mi ngi def lu bon loo xam ne sax mën na dugg ci askan bi ba am ñu mu yàq liy sunu warugar ñun ñi nga xam ne dañu jàpp ne yàlla sunu boroom lañ fi nekkal dañu war a sol sunuy dàll ñëkk dem wax ak jëmm jooju bu ñu dégluwul ñu wut ñaar ba ci ñetti nit dem waxaat ak moom bu ñu dégluwul ñu dem ci mbooloo mi waxaat ak moom te mi ngi ñuy wax ne dañu war a jaar dañu war a defee noonu ngir lan ngir mën a delloo si jëmm jooju nga xam ne mi ngi ci réer mi ngi ci lëndëm doxatul ci dëgg kon dañuy gis foofu ne jéebaane amutu fa yoon jéebaane amutu fa yoon ndaxte nee na na nga sol da sa dàll dem wax ak moom yow képp bu loolu weesoo nga ànd ak ñaar wala ñett bu leen dégluwul bu leen dégluwul ngeen wax ak mbooloo mi ngeen sol seen dàll dem wax ak jëmm jooju kon mbokki auditeurs yi ñu déglu tuuti cant balaa ñu ñëw ci ñaareelu xaaju waxtaan wi kon jërëjëf mbokki auditeurs yi ñuy wéy ci sunu émission kaddu gu sell gi ma leen di fàttali ne Seydina Issa almasi bi Yesu Christ wax na ni ñu war a jëflanteeg ñi nga xam ne dañu réer dañu topp seen bakkan dañuy def li nga xam ne yàlla sunu boroom da koy tere li nga xam ne nag mi ngi ñu ci soññ mooy lan ñu def sunu kémtalaayu kàttan ngir xëccaat leen ñu ñëw nekk ci dëgg déggal yàlla waxul nag ñu xiiroo ak ŋaayoo ñooñu waxul ñu xuloog ñooñu waxul ñu xeex ak ñooñu waxul ñu leen i dànkaafu waxul itam ñu leen i jéebaane wante na fa ne nañu sol sunu dàll dem wax ak ñoom bu ñu dégluwul ñu jël ñaar ba ci ñetti nit ñu ànd ak ñun bu ñu dégluwul ñu jël mbooloo mi ànd ak ñoom dem wax ak ñoom ngir lan ngir mën a def sunu kemtalaayu kàttan indi leen waat ci dëgg yàlla sunu boroom di ñu wax ci kóllëre gu bees gi ci nouveau testament ci nasaraan ci bataaxal ba ñu jagleel sàkk ci aaya juróom saar fukk ak juróom ñeent ba ñaar fukk mu ne su amee ci yéen ku réere dëgg te am ku ko gindi na xam lii ku gindi bàkkaarkat ci réeram musal nga nit ki ci dee te faral ko bàkkaar yu bari yàlla sunu boroom mi ngi ñuy wax foofu solo bi nga xam ne ak liggéey bu rëy bi nga xam ne yow mi jóg dem wax ak ki nga xam ne mi ngi ci lu neexul yàlla ba génnee ko ci yool bi nga xam ne danga ko am nee na bu amee ku réeree dëgg te am ku ko gindi na xam lii ku gindi bàkkaarkat ci réeram musal nga nit ci dee maanaam musal nga nit ki ci safara musal nga ko ci mu alku te loolu lu am solo la nee na te itam faral nga ko bàkkaar yu bari kon bu ñu gisee yool bi nga xam ne laxasunu ci liggéey bu mel noonu kon li nga xam ne moom la ñu war a jiital saa su nekk mooy ban pexe la ñu mën a def ba gindi ki nga xam ne mi ngi topp bakkanam mi ngi topp nafsoom ki nga xam ne dafa réer yàlla sunu boroom ne yow mi nga xam ne danga ko gindi na nga xam lii na nga xam ne musal nga nit kooku ci dee musal nga ko ci loo xam ne lu metti la lu naroon daanu ci kawam musal nga ko ci alku wante loolu jëmm ji nga xam ne mën na ko def mooy jëmm ji nga xam ne xol bi laab na jëmm ji nga xam ne xol bi fees naag mbëggeel jëmm ji nga xam ne bu xoolee nit ku bon la muy ñëkk a gis mooy alalu yàlla boo xam ne tàbbi na ci loxo yu baaxul naka laay def ba génnee ko ci loolu kon mbir mi du xiiroo du ŋaayoo du xeex du sànnante ay kàddu yu bon wante mbir mi mooy nga def sa kémtalaayu kàttan ngir bànneex am ca kaw asamaan ngir gindi ki nga xam ne dafa réer te nga faral ko bàkkaar yu bare loolu lañu yàlla sunu boroom wax yàlla sunu boroom di wéy di ñu wax ci téereem bu sell bi ci kóllëre gu bees gi ñu naan ko ci nasaraan nouveau testament ci ñaareelu bataaxal ba ñu jagleel waa Thessalonique ci aaya ñett saar fukk ak ñett ba fukk ak juróom mu ne bu leen tàyyi ci def lu rafet bu amee ku bañ a topp li ma leen digal sori leen ko ngir mu rus waxuma ngeen def ko noon waaye ngeen yedd ko ni seen mbokk loolu la yàlla sunu boroom wax donte sax nit kaa ngi def lu bon boo demee ba dëdd ko ba di ko sori nang ko def ci kaw lan ngir mu rus xelam dellu si wante bul ko sori def ko noon waxul loolu nee na waxuma ngeen def ko noon waaye ngeen yedd ko ni seen mbokk bu leen tàyyi ci def lu rafet bu amee ku bañ a topp li ma leen digal sori leen ko ngir mu rus ndaxte foofu dafa am bataaxal boo xam ne dañ ko bindoon waa Thessalonique muy li nga xam ne yàlla sunu boroom moo ko wax mu yokk ci ne bu dee nag loolu dégguñu ko bu dee loolu gëmuñu ko bu dee loolu jëfewuñ ko maa ngi leen di digal lii donte sax da ngeen sori ñooñu nga xam ne dégguñu liñ ma wax wala boog toppuñu li ma wax faraltaañuñu li ma wax ñu mel noonu mën nga leen sori ngir rusaange wàcc ci seen kaw seen xel dellusiwaat wante bu leen jàppee mukk ne noon nang leen yedd ni seen mbokk boo noonoo ak di xiiroo ak di ŋaayoo doo defar kenn doo jubbanti kenn ku bëgg a yedd koo bëgg a yedd mu dummóoyu la bu dee da ngay noonoo nit ñi bu dee foo tollu di sikk nit ñi bés boo jógee banaan da ngay yeddaate kenn du la déglu bis boo jógee banaan da nga bëgg a jubbanti kenn du la farataal ndaxte da nga ubbi buntu noonoo ba pare moo tax yàlla sunu boroom naan donte sax da ngay sori defkatu lu bon ki bul noonoog moom wante bàyyil saa su nekk buntu goo xam ne danga ko ubbi ngir ëllëg nga mën a wax ak moom ngir ëllëg nga mën a jot ci moom ba delloo si ko waat ci dëgg mu ne na nga wax ak moom na nga ko sori sax ngir mu ruus xelam dellu si wante bul noonoog moom mukk yàlla sunu boroom wax ci kóllëre gu bees gi ñu naan ko nouveau testament wax ci bataaxal ba ñëkk ba ñu jagleel timote ci aaya juróom saar benn ba ñett ni nga xam ne noonu lañu war a doxalanteeg nit ñi rawatina ñi nga xam ne dañu jiite njabootu Seydina Isa almasi bi Yesu Christ te lool nag nekk loo xam ne ku nekk mën na ci jàng ku nekk mën na ci jàng mu wax ne bul gëdd mag waaye waxtaanal ak moom ni sa baay ndaw yi nga digal leen ni say rak jigéen ju mag def ko ni sa ndey jigéen ju ndaw ni sa jigéen foofu mu jëm ci ñi nga xam ne dañu nji jiite mbooloo te ci biir mbooloo moomu muy am ñoo xam ne dañuy jàdd yoon wala boog sax nga gis koo xam ne dafa jàdd yoon mën na nekk mag mën na nekk ab soxna soo xam ne mat na la ndey mën na nekk koo xam ne itam rakk la li mu wax mooy bu dee ab mag la bul ko gëdd mukk del waxtaan ak moom te booy waxtaanal ak moom na nga jiital nekat kii ne sama baay la mu ne bu dee ab soxna la soo xam ne mag la nanga ko jàppee ni ab ndey nga waxtaan ak moom ni ngay waxtaaneek sa waajur wu jigéen maanaam may ko cër donte dafa juum mu ne bu dee nag am ndaw la nga def ko ne sa rakk rakk dañ koy yedd rakk dañ koy yedd rakk danga koy yedd ba pare jox ko sa bopp muy royukaay danga koy won sa bopp muy royukaay moo tax mu ne bu dee ab ndaw la def ko ne sa rakk yedd ko am yërmande ci moom jox ko sa bopp muy royukaay mu ne bu dee ab jigéen la def ko ne sa jigéen bu dee ab soxna la def ko ne sa jigéen sa jigéen da nga koy yërëm sa jigéen da ngay diisoog moom sa jigéen da ngay wax ak moom ci kaw njekk ak teraanga loolu la yàlla sunu boroom wax muy wéy di wax ci téeréem bu sell bi bu ñu jàngee ci li ñuy wax kóllëre gu njëkk ga ñu koy wax ci nasaraan ancien testament jàng ci xaaj ba ñu dippee sarxalkat bi ci aaya fukk ak juróom-ñeent sar fukk ak juróom-ñaar ñu koy wax ci tubaab lévitique nee na bu leen tong seen mbokk te artu leen seen moroom ni ngeen soppee seen bopp soppee leen ni seen jegeñaale nee na bul tong sa mbokk te artul seen moroom bul xiiroo ak bul ŋaayoo bul tong sa mbokk bu dee mi ngi ci lu jubul wante dee ko artu te dee ko xool ne sa bopp dee ko jàppee ne sa bopp loolu la yàlla sunu boroom wax mu wax ci kàddu yu xelu yi ñu koy wax ci nasaraan proverbe ci aaya ñaar fukk ak juróom saar juróom-ñeent ba fukk nee na boo jotee ak nit bul ko jéebaane nee na boo jotee ak nit boo amee loo xam ne gis nga ko ci nit nee na bul ko jéebaane nee na nga ñaaroo ak ki nga joteel te bul ko jéebaane bu dee sikk nga nit gis nga loo xam ne ci nit ki baaxul neexul du dëgg bul jàpp ne rek day yàq askan wi dëgg la loolu muy def mën na yàq askan wi wante demal nga ñaaroo ak moom waxtaan ak moom wante bul ne bërët jéebaane ko ba pare naan ne may dem waxtaan ak moom bu boobaa noonoo day dox ci seen diggante nee na baale tooñ yokk cofeel sulli ay tas xarit loolu la yàlla sunu boroom wax ci kàddu yu xelu ci aaya fukk ak juróom-ñaar saar juróom-ñeent nee na boo jéggalee da ngay yokk cofeel boo demee ci njekk ak teraanga ak sutura waxtaan ak ki nga xam ne dafa juum bu boobaa da ngay indi cofeel seen diggante ndaxte dana naw ni nga jëflante ak moom yàlla sunu boroom di wax ci kóllëre gu bees gi ci bataaxal ba ñu jagleel waa galat ci aaya juróom benn saar benn nee na mbokk yi ku ñu fekk muy def lu yàlla bëggul yéen ñi topp yàlla na ngeen ko jubanti ak xol bu lewet boo xoolee askan bi nga gis ci ñoo xam ne kat lañuy def neexul yàlla defal sa kémtalaayu kàttan ngir nga jubbanti leen ànd ci ak xol bu rafet bul ci ànd ak xol bu tàng bul ci ànd ak fitna wante jógal nga sol sa dàll ànd ci ak xol bu rafet waxtaan diisoo ak ñoom ngir génnee leen ci lu bon loolu ñu nekk ba ñu dëgmal dugg ci lu baax bu boobaa yàlla sunu boroom a ngi lay wax ne def nga lu rëy ndaxte indi nga bànneex ci kaw asamaan indi nga bànneex ci biir malaaka yi ñu leen di sant di leen gërëm mbokki auditeurs yi di sant Seydina Issa almasi bi Yeesu Christ sunu yaakaaru tey sunu yaakaaru ëllëg moom mi nga xam ne mooy buntu mucc buntu texe buntu yërmande ñu leen di fàttali sunu numéro téléphone 77 074 35 35 wasalaam
mbokki déglukat yi fii la ñuy yemale sunu émission maa ngi leen di sant ci déglu bi te di leen fàttale sunu téléphone di 77 074 35 35 yàlla na yàlla sunu boroom wéy di leen barkeel tey wàcce ay yiwam ci seen kaw ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mën ngeen jokkoo ak ñun ci 77 074 35 35 نخاف الرب